ah duñ dem ci géejawaay. allez-y. alors maa ngi koy wax sànq def nga ñaari at. Mhm. à la tête de la de la mairie de de Guédiawaye d'abord une question ma tooñ la tuuti xalaatoon nga ne yore mairie noonu la complexé. waa xam nga barki bu dinañ ci dellu sax dañ doon def benn déguerpissement rek sama benn xarit ne ma amet nekk maire fi nga dëkk dafa dafa metti ma ko ah mu ne ma waaw. tey yow xam nga ci dara ma ne ko dañ naan la sa papa fii la doon jaayee sa yaay fii la doon jaayee léegi li kon yow léegi léegi léegi lii ma ne ko loolu rek moom moo ci metti de quant ak nag jàkkaarloo ak population bi war a def dara man loolu man non yëngalu ma. ci am remords doo regret. absolument pas ils vont quitter samay xaritu papa samay xaritu yaay samay dëkkandoo samay lii samay lee mbokk ñoom nee na mbaay ñoo fa ne mais man dama ne ñoom dañuy jóg loolu nag moo tax ñun ñu jël ñu teg ñu fa kantaa nag eh, yor maire yi ndax xalaatoon nga ne metti na léeg-léeg li li ma foogoon sax moo gën a tar man li may dund nii. Ah waaw man li ma foogoon. Hmm. moo gën a tar. man actuellement li may dund. Aliou nee na de doyal nga xam nga la nee na ñu mënoon écourter mandat bi xam nga xam nga xam nga Aliou nag. saa saa waat ci. waaw xam nga Aliou xam nga Aliou moom. nee fi mu nekk nii doyal nga. Euh, xam nga mandat bi bu ñu ko écourter woon nga jël xam nga Aliou. Euh. pendant sept ans man dama ko yéeg. da nga ko yéeg. waaw deux mille mars deux mille quinze ba deux mille muy juróom-ñaari at. ma teg ko dama wax barki dee mu ma ne mais kenn mënul génnee vaar fu ma waxee ba tudd turu papam wala turu yaayam ay saaga walla non jamais mais nag lu jëm ci wàllum gestion li ñu ko dénk géeje waaye pétrole gas dugg na fi génn fi non wàccuma ko ñu dem ba juróom-ñaari at yàlla dogal ci mbaaxam wala ci nattoom côté Aliou yàlla dogal ñu gañe ko kooku man sama yar mayatuma may toog ci télé continuer di ko yéeg yàlla bu la defalee teraanga fi mu nekk nii moom moo nekk ci balcon bi di socc di la reetaan non non non yow yaa dese demande bi demande sociale bi non non non dama xam nga man mënoon naa ko mënoon naa gañe ba pare def comme li magam di def nii c'est-à-dire gañe ba pare tongal leen ñaata maire ñoom ñoo fi gañe ba pare def conférence de presse je le ferai pas mais est-ce que am nga élément li ma waroon a def li ma waroon def man bind naa à kii de droit te bu ñëwee ba ci biir ak l' état la muy def ca géejawaay ma tojal la ko mais du ma tudd tur. mais mais mais da nga bi nga càmbaree gestion dafa am loo ci gis. non man daal vraiment man du ma yegg foofu man daal dama ne am na ay directeurs yoo xam ni wax nañ leen ne lii ak lii ak lii ak lii yéen ko fi jëlee BRT bi bi ñu koy defar lii ak lii ak lii ak lii mais bind à qui de droit. mais du ma toog ci télé jàkkaarloog nit ñi ne leen diw ak diw ak diw ak diw lii ak lii lii ak lii wax wax du ma ko def te am na sax man ay waa yeewi yoo xam ne mere woon nañ ma ci. waxuma ah, Aliou de dañ bëggoon nga nga nga def déballage reddition des comptes. reddition des comptes am na reddition des comptes ñaara am nga bind li nga war a bind yëpp wax ni lii ak lii ak lii wa ilaa nga ñëw toog ci rajo ak télé. ne diw mii comme que moo ma doon def lii ak lii ak lii ak lii ak lii wa ilaa nga jël yat mooy kaso bi le ferai pas li ma war a def xam nga mooy lan administration bind la xam ñu bind ñu ñëw ñu teg état central bi nag dana def li ko war waa wala déet ñun loolu daal en tout cas wàcce nañu ma daal li ma la mën a wax ci moom mooy ñun daal jàmmaarloo nañ pendant juróom-ñaari at à visage découvert musuma nëbb ne dama bëgg a nekk dama bëgg a wutu Aliou juróom-ñaari at yëpp ba juróom-ñaari at yi jeex yàlla may ñu ndam moom nag bu ñëwee toog fii <laughs> mais am na léegi léegi léegi léegi lii man damay muuñ pousse avance dem. non parce que léegi léegi et puis ah. ah. crier critiquer. léegi Aliou mooy opposant ah non actuellement il est là. aussi <laughs> devant moo newoon ci kanam ma pousse ko de léegi ko ñëw taxaw nii. Ah. mais mënu ma di dox nag naan Aliou ana di ko may loxoom di ko <laughs> génnee saako yi. moom yaa ngi toj garaaw yaa ma bëgg a pousse yéen nii mais bon. yaa ngi yaa ngi toj garaaw non non non yow yaa ko fi daal lii daal laa la xamal ne la bon ñun yarewuñu noonu. mais nag bu ñu nekkee ci jamonoy xeex moom da nga naan amee ndax lii la doon wax ne yarewuñ ko lii.